show. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love, Let them soar.

gën a waa wàññi nag parce que mën nañu jàpp suba bi jàpp gënu gerte ñu waaye ñu suñu ndey ñu bàcc ndey bàkkaram nga xam ne bam dooree mën na ko liggéey tegal waaye dafa doon àndal deux mille nga commencé dem ba léegi mu ngi mais bam commencé conférence bi léegi septième année septième fois day ko wax dëgg yàlla boole ci ak te di bóot yëpp amul yàqu gànnaaw dañ ko jox loxo ma nga ca di ko sant di ko ñaanal yàlla gudd fan bu ànd wér gi ak mucc yàlla yàggal ko te saxal ko tam gën ko dooleel jàppale ko di ko ñaan ko ci seen yàlla ko pour yàlla yóbbu gën ko def suñu borom yàlla ko sunat bu barkeel di muy def ndax yàlla may gudd fan bu ànd ak wér mu mun cee boot ñëpp ànd ceeg xew rek day amee nga ca utul góor la utul jigéen la utul naaj la fecc ak moom musiba utul woon foo ko rek day amee nga jóg taxaw dëgg yàlla xale bu neex a boot la xale bu bugg ñëpp la jox ñëpp cër jox nañu gerte kum gis bàyyam nga kum gis magam kum gis càmmiñam nga kum gis ndeyam ndax day amee léegi dafa nekk loo xam ne nee bu lekkee aloom na ko gërëmee jëriñ ndax nee nañ bu nee diw baax na ñu ne dafa ko yàq wax day am yéen mu commencé ci ay mbokkam di togg yi muy def ndax bu ko neexoon mu ne mun naa togg ndogu rek joxe waaye day am léegi day togg ndogu di ko jox daara ji di si doole ko joxe ci ñi nga xam ne ñaa bi dafa féete seen ginnaaw lépp nday ami lay di ko def xam ne rek jullit bu nekk da ngay jàppale sa morom jullit ñuy ñaan yàlla nag nday ami lii muy def yal na ko fi yàlla bàyyi bàyyi ko fekk njaboot bi bañ koy weer di weer ñun ñii nekk ci waañ bi yal nañu yàlla may lu ñu too doole liñ koy defee ak kàttan ak di ko mun ndax nday ami léegi mënuñu koo fay ndax safara si dañ koy def ak nday ami léegi ngir yàlla ak yonent bi xam ne ñun dañ ko war a jàppale di ko jàppale nday ami léegi lii muy def yemalewu ko ci koñ ku sumb Fatick nday ami léegi dëppale na la ku ci sumb Fatick fii ba gën Fatick fii ba jaxaaw ñaaxar juru fu nekk day ami lay jàppale na la ndakaaru sax nit fekk la oo day ami lay day ami ah, gi rek waaye maa ngi waaye jigéen ju mun góor la korité day solal taalibe yi day solal taalibe yi ba jun nga xam ne sax bu ñuy taalibe suñuy doom duñu taalibe sax daf ñuy solal dinañu jox cee dinañu jox dawlin dinañu jox jox soble dina togg yóbbu hôpital digganteem ak Macky Sall ñuy ñaan Macky Sall mu tegal ñu ndey amit lay foo xam ne ñun ñëpp logandéem ñëpp ak ak cat lu bees logandéem yëpp dinañ ciy jot loolu la ñuy ñaan Macky Sall ndax ndey amit lay kat digganteem ak Macky Sall tubaab fakal la macha allah liggéeyal na ko liggéey bu rafet mu ngi koy liggéey rax ci dolli nag suñu ministre bi di Matar Ba di càmm ñaar ñu koy sant di ko gërëm ndax Matar Ba kat nee nañ dooley saxaar raay doole jënd géej ma Matar rek moo dooleel day am ndax Matar dooleelu toon day am itam day am dina def waaye itam mun naa mu demee neneen waaye nag ñu gërëm yàlla ko yàlla bàyyeeg Matar. jërëjëf sëñ Babacar wax leen jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar. waaw man damay laaj ndax tante bi am na ñu fi bëgg sëñ Babacar. ana ngeen. jërëjëf sëñ Babacar képp ku ko wax yàlla na nga dajeeg sëñ Babacar. xam nga damay laaj. ana taalibe Cheikh yi. jërëjëf sëñ Babacar. déggu ma leen yéen naa gën a kaawe. jërëjëf sëñ Babacar. déggu ma leen jërëjëf leen ko càkkal. jërëjëf sëñ Babacar. déggu ma leen wax leen ko càkkal. jërëjëf sëñ Babacar. kawe la baat yàlla nga ji sëñ xalifa ku ci bëgg sëñ Babacar jóogal taxaw jigee taxaw tey wax naa nañu màggal xalifa aw soppe yi sa Babacar seen loxo yi man de damay la ana taalibe chéri jërëjëf sëñ Babacar ñun jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar. julli xalifa. jërëjëf sëñ Babacar. sant ren di nga sant ak déwén. jërëjëf sëñ Babacar. الحسن فينكو خليفة جرناك جرد في زين باباك أخرجكم منهم لحنين كتف جرد في زين باباك من جرد في جرد في جرد في جرد في جرد في زين باباك يا جديفي يا جديفي جرد في زين باباك يا جديفي رب الله جرد في زين باباك خليفة bay wul naa la sëriñ bi sëriñ Bamba Ka jëlewal lu kam la booleel sëriñ bi sëriñ Bamba Ka bopp xeeb bi sëriñ Bamba Ka bàyyi al abid bàyyi sëñ Mansour bàyyi Cheikh Tidiane bàyyi al abid bàyyi sëñ Mansour bàyyi Cheikh Tidiane bàyyi al abid maami Moustapha sama sëriñ jërëjëf sëñ Babacar jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar organisé bu ma teewul di jël kàddu itam léeg-léeg dinaa ko am kër Ndeye Amy waxtaan ak Ndeye Amy itam tey nag li tax ma def ko mooy ne ami dafa ànd ak délégation ñëw ba ci suma kër ko ma ne leen dinaa fexe ñëw ñëw officiel bi nag ministre Matar Ba bu ñëwee daf may yóbbuwaale parce que suma rakk la te suma mairie dëkk la dama ak moom ñoo xaw a dend projet ñëwee rek bu waxee yóbbaale na man li ma ko firnde rek mooy suma diggante ak ndey ak di ko ci biir mbokkam di ko gërëm ci biir am di jàmmam parce que rek mu wax ko ne maa ko jàngal politique man ak kuma Ndofène Bouna ak Pape Macky Gassama dan na ko yaay dem xare ko àjjana wax na dëgg loolu rek war naa tax saa yu taxawee di def dara ak ay mbokkam ma ñëw nuyoo giseeg moom mu gën am ndëgër lay gën a am courage gën am détermination ci li muy def day amee yàlla la yàlla jàpp yàlla la yàlla dolli kattan bi lii ngay def bañ koy commencé tante bi yëmutoon nii yàlla tante bi dem ba jéggi koñ bi jéggiwaat beneen koñ bi kooku yàlla mun na ko yàlla la ko yàlla defal di la gërëm sant aussi parce que ni nga ma yégee ah yàlla la ko yàlla yëgee yàlla la ko yàlla fay li tax mooy teel a dem nag waru ma woon a dugg si sax dama ñëw dugg gis tant bi rek ni nañ delluwaat suma doom jii moo ma ne il faut ñu dem parce que dama war a dem ndoos jóge ndoos dem dëkk bu ñuy wax tukaat benn dëj jóge fa ñëw ndundoox beneen dëj doog a ñëw ndogu si fii Fatick loolu nag mën na ne toog xaar suma suma rak suma xarit Matar ma kàgg dina guddi. siiwale yàlla la siiwale yàlla la siiwale yàlla la siiwale yàlla la siiwale yàlla la siiwale yàlla la siiwale يا يلا رسول الله people of Dalaija, Ummati people of Dalaija, Ummati people of Dalaija, Ummati people of Dalaija, Ummati people of Dalaija, Ummati people of Dalaija, Ummati people of Dalaija, Ummati people of Dalaija,

tàntal mu gudd jara màggal loxo nabi jara tàntal mu Mustafa jara màggal waa Fatick la ni wayal yéen yéen a tàntal yonent waa Fatick la ni wayal yéen yéen a tàntal yonent ana ku bëgg Mamadou Lamine soxna Ami la ni wayal soxna Ami la ni wayal ana sëñ bi soxna Ami mahabbatu

تجارة لخرجكم أنا سبيس فعلي تجارة لخرجكم أنا سبيس نسعدكم تجارة لخرجكم أنا سبيس نسعدكم تجارة لخرجكم فتئكوا في أمعاجو يكتل سلوخو فتئكوا في أمعاجو تنقبكم مقارفة جو جلال أتدم ziyaare Maam Maodo di ziyaar sëñ Babacar Si mooy xalifa Ababacar wax leen bëy si bay bëy si bay ñun ñëpp ñu bokk wax alhamdulilahi rabbil alamin ay mata dafa am lu nekkoon tiisu Fatick ñëpp di ko tiisu ñu jaaxal leen loolu yàlla teggil ñu ko dégguma kenn di ko waxtaani muy ndoxu Fatick suñu waajur yi dem nañu rooti yafaaroo ba sonn dëgg la lu dëgg may laaj ba Fatick amee ndox mu neex ba léegi ndax sant ngeen yàlla wala yaa ngi ngeen ci yooni fontaine yi de fu ne jënd ngeen fa ndox yàlla dimbali leen may leen ndox bu neex moo xam ne Fatick dem naa ko fi dàq ndox kon wax leen alhamdulilah rabbil alamin subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wassalaamu alal mursaliin لكم معجزات عاجبت كل الغرايد برب خلب بندك دفنديك نفاتو اي لك معجزات عاجبت كل الغرايد استاقنا يقول ارمي اليوم برب خلب الافريجي لكم معجزات la neex foo toll ci naqar ngay nekk. ak mu'jizaatun aajabat kulla al-waraa. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. na ku iñaan du nekk sang ba addunay tukki ana sabiyan la ta mu'jizatun a'jabat kull al-wara ak wax ji ma ko wax moo ma naqari ma mën a tasali ni ko jaar daal mënul ñàkk ñun la boole ma wax la ko waaye li ma yéem mooy ndaw si dana suba te benn néeg a fi ne maam ni ko loolu du ko waajal sa néeg ba mu mën a dugg ci néeg bi man jaara ma tëraani ci samay xarit bu ginnaaw ëllëgee bu xale yi ñëwee ñu lijjanti beneen néeg maam moo ànd tasali ni ko d'accord guddi jot na ci gàttal ma soxna jaara moo defar néeg ba ba mu jekk mu lal ko ba mu jekk delloo buntu ba Mamoor Anta dugg ca biir néeg ba ñu indi soxna sa soxna jaara wàcc ko dugal ci biir néeg bi wu jëm laa la wax de ko dugal ci ba pare génn delloo ba ni maa ngi tëraani Mamoor Anta Sali ko ba suba soxna jaara ci néeg ba fajar jot góor di yeesal njàppam naka di yeesal ci biir waañ bi li ñu defaroon di ca mamoon antasali dégg ndab yi yëngu mu waaxu ba ci waañ wi yor niitukaay bi ñiit fekk soxna jaara jonkan di jàpp mamoon antasali ni ko jaara kañ ngeen ñëw ci jaara foofa naan mu ne ko fii ci mag nag yee bokk taabal ji tëdd man ma nag sat bu biti ñëpp a koy xaar nekk ñëpp a i xaar tàng. a koy xaar fekk kon ñoo xam dem Touba ñooy dem Touba di dox ci naaj wi ñaata nit ñooy dem Touba du ñu dugg ci kër ñaata nit ñooy dem Touba du ñu am fu ñu tëdd te kenn leen fa yóbbu mooy soxna Jaara ndax moo jur man Xaadimu Rasuul mi tax gaa yi dem fa eh bi mu ko juree ba àgg ñu doonte jigéen ñi sanga ma jur man maay liggéeyee sama bopp ba nekk Xaadimu Xaadim ñu ne ko lan moo la koy def mu ne dinaa fexe ba bu ëllëgee bu ñu tudd gaa yi yàlla yi tudd ma man Xaadimu Rasuul dinaa fexe ba bu ëllëgee bu ñu tudd gaa yi yàlla yi tudd ma lan moo la koy may mu ne kenn la waaye jël def ko sama àdduna def ko sama àllaaxira ñu ni ko kooku kan la mu ni dinaa jël Muhammadu Rasulillahi def ko sama àdduna def ko sama àllaaxira ñu ko kenn ku nekk ak la la bëgg waaye man xaadim ak la ma bëgg ñu ni ko lan la bëgg yàlla Muhammad rek laa bëgg jublu ma ngir yàlla jaayante ngeen ci yàlla Muhammad rek laa bëgg loolu rek mooy sama objectif am ma beneen bëgg-bëgg bu dul jaayanteeg Muhammad rasulillahi loolu dong mooy sama bëgg-bëgg ñu ne xaadim rasul nan ngay jaayante ngeen ci yàlla Muhammad mu ne xam naa kuy Moustapha te danaa wër Moustapha te danaa gis Moustapha su ma gisee Moustapha danaa xam kan mooy Moustapha su ma yeggee ci Moustapha ba janoog Moustapha danaa xam kuy Moustapha xaadim rasul ne topp naa àll bi ubbi naa bunt yi bunt bu nekk dugg naa fa gis naa koy jëmm waaye jëmm yi may jàkkaar lool bokkut ak jëmm ji may wër ñu ne Xaadimu Rasuul jëmm ji ngay wër jëm jëmm la mu ne su ma ko gisee xam ko Serigne Touba ne dugg naa ci benn néeg fekk naa ko benn mbindeef mbindeef ma soppaliku na leer di wax ak man Xaadimu Rasuul ne leer gaa jékki-jékki am kàddu guy addu naan ko yow a xaadim mu naan mu naan ko lu la xaraamoon dagan na la lu la daganoon xaraam na la lu la neex defal ci diine Xaadimu ma ne ko yaa bon yaay saay saay ñu Serigne Touba lu tax ko wax ko yaa bon mu ne li dagan daganoon waaye du xaraam mukk waay li xaraamoon du dagan mukk waay xam nga ki may daganal loolu bu yont yàlla Muhammad nekk Iblis say-say bu bon bi la Xaadimu Rasul dajeel Iblis soppali ku jëmm ni Serigne Touba nan nga def ba xàmme nga ba xàmme ma Xaadimu Rasul ni ko bi ma nee jàkk sa leer gi daa am ay tur bi ma nee jàkk sa leer gi dafa xàll te leeru Muhammadu Rasulillahi daa leer na soxla amul benn xob looloo tax ma xam ni doo Muhammad waaye seytaane bu bon bi nga looloo tax ma xam ni doo Rasulillahi su ma tasee moom xam ko ko Xaadimu Rasuul ne tëj naa porte boobu topp naa ko ci àll yi maa ngay dox maa ngay dox Serigne Touba ne dox naa ba yem ci benn porte nee na ubbi naa porte ba fekk naa fa jënd jëmm joo ni ci néeg lay dugg fekk mu ne àll fekk bi ma xet gi xeeñee laa xam ne ki ma doon wër ko ñu ne Xaadimu kana mu bi ma xet gi xeeñee laa xam ne ka ma doon seet ne naka laa tàllal sama loxo Moustapha tàllal loxoom ma teg sama loxo ci loxoom ni ko yow laa doon wër gars yi di ma këll këllee yonent Yàlla Muhammad ni ko luy sa bëgg-bëgg mu ni ko dara antal karimu annal qadimu tëral udimu fii ka safari ba addunay takk ba addunay tukki def ma rek ma nekk sa géwél yow Muhammadu Rasulillahi Moustapha ne ko may naa la ko Sëriñ Tuubaa ne ko bu yàlla dekkalee jaam ni maa ngi lay ñaan képp ku ma yaakaar man Xaadimu Rasul ma dugal ko ci sa poos bi nga dugalal ko ko aljana Moustapha ne ko may naa la ko Baay Serigne Touba maam Thierno di Serigne Touba lu tax nga ñaan loolu yor yàlla Muhammad Xaadimu Rasuul ni ko Thierno da nga koo xeeba mu ni ko déet Mbàkke doo def lu may xeeb waaye damaa xam ni li nga yor ci njaboot xajuñu ci poos Rasuulillaahi mu ni ko Mbàkke Thierno bu ëllëgee bu yàlla dekkalee jaam ñi ni may def taalibe yi bañ dugg ci poos Rasuulillaahi jamono ngi ñëw dina la tontu yow Thierno ñuy dem di dem ba tey jii su ma bindee chèque sept milliards su ma la ko joxee xaj na ci sa poos bu ndaw bi waaye boo retiré sept milliards xajul ci benn poos Xaadimu Rasuul ne sama njaboot bi yi chèque laa leen di def dugal ci poche yonent bi bu Moustapha duggee biir Makka da biir àjjana day rot ci chèque bi retiré ko biir àjjana njaboot bi rot bu dëkk ak ñoom yàlla na yàlla def ko ba Seydina Muhammad léegi. أبو الزهراء يجتعي فيك عثمان عثمان ما كان متتتواون بكرة درمان أرم لوكو بجام بجتندر فاتتن هيا الله بوكو جور شيخ الحاج مالك أي بابا كرسي

dekkalee jàmm ni lenn rek laa yaakaar mu ràmm ma ñu ne ko lan nga yaakaar mu ni sama cofeel ci yéen yàlla Muhammad moom dong laa bëgg bu yàlla dekkalee jàmm ni mu ràmm ma Ousmane bi Maodo waxee loolu ñëpp jàpp ni wax jafa lay yem isaanam li dinaa naxla bi taamul bi xoolal ku jur doom deewoo bu fekkee doom ja mel na ni baayam ci nga deewul ku bëgg si la xaji malik bi taxaw wa jannaw saxawa la yinaale ñoom ñuy seet di di lii Ousmane di way Serigne Alioune Gueye ko wax Cheikh Alhaji Malick ci gàttal Ousmane benn président daa écrit damaa bëgg a wàcc nag wàcc jot na Serigne Alioune Gueye nee na li may wër di jàng xam-xam Serigne bu ma dégg dem naa ci moom kilifa bu ma dégg dem naa ci moom borom xam-xam bu ma dégg dem naa ci moom waaye Serigne Alioune Gueye nee ku ma dem rek damay sonn lool ak liif du dugg ci sama bopp waaye Serigne Alioune Gueye nee di jant bi ma dajeeg Cheikh Alhaji Malick ñu ne Serigne Alioune Gueye lu xew mu ne man li ma jaaxal 24 heures laa def kër Maodo ko mu sol ma xeeti xam-xam yii moo ma sol xam-xamu fiqh moo ma sol xam-xamu bayaan moo ma sol xam-xamu ulum moo ma sol xam-xamu siire Alioune Gueye nee na benn boy laa ko def Cheikh Al Hadj Malick dajale ak xam ñoom ñëpp sol ma ko ba man Alioune Gueye ñu ko may luy ñëw ci téere man Alioune Gueye ma ko la defal loolu mu ne Cheikh Al Hadj Malick moo ma ko defal ma ne la nag daa am lu garaaw lu xew mooy Maodo daa faatu bàyyi fi doom doom jim fi bàyyi nag moo war a eggale liggéey ba la bàyyam waxoon lu tax waxu ko moom Babacar Sy wax naa ko Dakar benn nit dañu ma Cheikh Al Khalifa lu tax taxaw te lalul woon di jàngale ma ne ko Serigne Babacar Sy mënul woon lal di jàngale ndax baayam daa formé ay boroomi xam-xam Serigne Babacar Sy dikk fekk fi ay boroomi xam-xam mu xam ne ay boroomi xam-xam kese bu leen dajalee te boroomi xam-xam yooyu amuñu organisation Serigne Babacar Sy nee na borom xam-xam yi duñ jariñ kenn Cheikh Al Khalifa bàyyi fa lal jàngale organiser daayira créer ay daayira borom xam-xam yi di jàngal ñi xamul ñi di dimbali ñi ñu tane Cheikh Al Khalifa indi stratégie ma ne ko gouvernement bu nekk président bu ñëw ak nooy gouverner na Senghor gouverner bokkut ak ñi Abdou Diouf gouverner ñi Abdou Diouf gouverner bokkut ak ñi Abdoulaye Wade gouverner ñi Abdoulaye di gouverner ku la dal sa xel moom ngay def Serigne Babacar Sy daa bàyyi fële liggéeyu Maodo ba xam na liggéeyu borom bore carré bi góor gi tëdd ci pavillon doore bi góor gi leen bala ngaa jébbi sa a fekkal desem Serigne Babacar wala photo Serigne Babacar nga jël peinture bu noir taf ko ca photo ba ca jëba boo tourné gis mu gën a leer loolu yàlla ko ko defal kon ñi ne ci photo bi te boo toog yaakaar ni moom ngay jàkkaarlool Cheikh al Khalifati bahral ilmi wal hikami arabi shariati hadina li xayri subul see faxi tasmine la bu yàlla dekkalee jaam ñi yow Maodo sa jokkeel ci yeneen ci bi moom ngay yaakaar pour yàlla jàllale la waaye Cheikh al Khalifa ne bu yàlla dekkalee jaam ñi man Babacar Sy maay benn jaam boo xam ni moom la yàlla di moom la yàlla di ndamoo laaj ma lu tax waxew ma la waxi bakkan kenn ku nekk am na koy tiitaroo waaye bu yàlla dekkalee ah. dina wax ni man yàlla amoon naa benn jaam boo xam ni ba mu juddoo ba nit ma wuyu see musuma mooy booba jaam laa bëgg a gis mës ta wax lu dul dëgg mës ta ñàkk ba jël lu moomul mës ta fecci wëllëre mës ta jàpp bàyyi mës ta soppeeku bu keroogee waaw ñoom mooy Cheikh al Khalifa mooy jug tàllal ay loxoom ma Babacar ni cim àjjanay ko lu tax nga wax ko mu ne bu yàlla dekkalee jaam la lay dugal waaye dugal ci barke diw man Babacar ko ñu ko loo bëgg mu ne bu yàlla dekkalee jaam man Khalifa mu xam ni mérite woon naa aljana ndax danaa liggéey lu tax bu dekkalee jaam ñi xam ni Babacar si mii doomi Maodo Dieng soxna Rokhaya Ndiaye mérite woon aljana àjjana looloo tax mooy liggéeyal suñu borom te bala ngeen a xam ne xew ëllëg yow man xiyaam lay doon sëriñ Cheikh nee na bala ñoo xam sëñ Babacar Si danoo dem ci kanamu yàlla xam xalifa mbata ñu jàkkaarloog suñu borom loolu lépp nag ñu ngi ko amee ci barke Mouhamadou Rasulillahi yàlla yónni yéen si yàlla Mouhamad Moustapha nga Màkka maa ngi leen di ñaan ku tooñ nit na nga ko baalu képp ku ñu tooñ baalal kala tooñ ñun ñi daje ci tànt bi kenn ku nekk ne yéen ci xolam ku ko mos a ameel àq na ko baal te yàlla tax ku la mos a ameel ak baal ko te yàlla tax boo fi jugee koo yaakaar ni dalaa mere dama jéggalu ji ko ñaari jullit bu ñu toogee ñetti fan te nuyonte wuñu yàlla ubbil na leen kër safara ñoom ñaar ñëpp ñaari jullit bu ñu tongoo lu mat ñetti fan yàlla ubbil na leen kër safara ñoom ñaari jullit yëpp ak jullit du tongu morom ma lu ci waay def nii da ko ko jéggal adduna yàggul lu gàtt laa lay nettali ci Moustapha nga xam ni njéggal a am solo yent yàlla Muhammad daa julli safa daa julli naafila ba pare toog ci taatu kaaba gi benn yahóor fekk ko ko di ko tax taxaw ngir yont yàlla Muhammad rocci jaaseem xàcc bàyyi ba rasulillah yi sujjóot mu nar a jor loos wi Moustapha si ji toog naka la nabi si ji toog di taaye mu ne su ma ko rayee sax day mel ni dama koy bett naa bàyyi ba mu sëlmal taxaw di ko xaar ba rasulillah yi sëlmal mu ne ko yaa ma tax a jóg Moustapha ni ko lu xew mu ne ko sama digganteeg yow kan moo la mën a muccal ci jaasi ji ma yow rasulillah yi di ko xool ba mu yàgg mu lamsal bët yi Cheikh Al Hadj Malick nee na bëtu càmmoñ rasulillah yi ba am na benn tomb bu ñuul bu fa nekk loo dëgër dëgër xol bu la Moustapha la lamsalee nga ni groupe sukk ci kanamam waaye waaye ku jabaram daan xool ba mu yàgg mu jaaxaan ci ay tànkam ndax taar bu ko keneen gisee mat na wax na ko yàlla bindee jéggi dayo bët ya daa rëy lool la weex def tàll la ñuul ñuul kukku siñ ma tàllalu def ay dakk-dakk ceeñeer di ci génn siñ ma ñuul kukku bañ a weex tàll diggante bañ a am ay ferñeent yu cay génn ngaami rasulullah yaaga tànni foo toll di seen leer ngay leerkati bu Moustapha di dox bu tegee tànkam ci xeer tànk bi du marqué bu ko tegee ci suuf tànk bi du marqué su ko tegee ci xeer tànk bi marqué bu la rasulillah yi nuyoo di nga toog 40 jours sa loxo bi xëy parcours rasulillah yi bu Moustapha rombee ci mbedd mi ñeent fukki fan mbedd moomu ku ko jaar xeetu yonent bi dina xëy bu Moustapha mosaana ñaqee bu rëddee ñaq wa su ko wi texee fu ñaq dal ñeent fukki fan muy xëy parcours yonent yàlla Muhammad Cheikhul Haaji Malick ne parcours rasulillah yi yàlla ko liggéey ca gàcce ca aljana looloo tax bu xet benn bërigo suñ paree seen doon ndox moomu mooy doon seen parfum te foofu duuroo ñu laaj leen fu ngeen ko jëlee Moustapha dana tëll bis ci këram fekk Seydatuna Aïcha toog wax naa la ba tàyyi ne la Aïcha jigéen bi bànkoon la jigéen bi mënoon boppam la jigéen bi meloon nam war a mel pànk ak dangaam nag bu ñu benn léeg-léeg jigéen dangaam ñu naan dafa pànk déedéet daa dangaam te yaree di ko nañ ko wax ni ko yaruwoo bis buñ ko xamalee ni yaruwoo dina xam ni yaruwul Aïcha nag dafa pànkoon ndax daa magoon li mu doon fees deel la xam-xam mel ni mu war a mel te beewul ba pare dàq ci ay moroomam bëgg loo jot yàlla Muhammad jàppale loolu rasulillahi Moustapha nga toog yowat bi ni ko ku la mën a muccal rasulillahi siggi lamsal ñaari bët ya yowat bi xool ko mënatula dégg taar bi nekk ci kanamu yonent bi bi xayrihi bi xayrihi jalabal wara Cheikh Malick nee na ni taaru yonent yàlla Muhammad a leen daaneel am na ñoo ni Moustapha da leen a dàq ñu tuub naka la ko yowat bi xool ak taar di lox a lox ba ci kanamu yonent yàlla Muhammad Moustapha ni gëneen jaasi ji jug taxaw ni ko waa léegi man ak yow kan moo mën a muccal morom ma ci jaasi ji yahud bi di ko xool ba mu yàgg ni ko xanaa nga baal ma rasulillahi ni ko du ma fayantoo nit ku lu mu am lu nekk moom lay joxe man Moustapha aw ma lu bon baax rek la ma yàlla dégg wa maa arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiin moo tax maa ngi lay ñaan lay ñaan yow Mansour ak moom ak ñi mel ni ñoom lu leen waay wax jéggal leen ko ni la yàlla yàlla def ngay muñee ni la nit ñiy def lu la waay wax baalal lu la waay def baalal lu waay lu la waay lebal ci lu bon fay ko lu baax ndax ku baax lu baax rek la am te am na foo xam ni bu la fa yàlla nattoo nga juddoo fa bokk fa mënoo xam lu bon te mënoo caa bokk a xam yéen lu baax rek ngeen mën a xam dee leen lu baax comme ni ngeen koy defee ñun ñëpp ñu jàng ci yéen di lu baax bu la nit saagaa ndax sa lu saaga wa ñaaw ñaaw boo ko waxee kàddu gu te yëgoo ko ndax li tax nga gañe ko sëñ nite yow feeñ na bu la nit defee yëfi kon dañ koy def yëfi nit bu ko def yëfi kon ndax su la nit defee yëfi kon nga def ko yëfi kon ñaari kon ngeen keneen def yëfi kon nga def ko yëfi kon ñeenti kon ngeen da ngeen di mujj dëkk bi yëpp nekk ay kon yu konk rek àndandoo di konkon wi dem yàlla bu ñu nekk ay kon yu konk rek àndandoo di konkon wi dem wasalaamu aleykum ba déwee dañ ci am suñu imaam yi fi nekk muy imaam Mouhamadou Mansour Ngom waaye it di suñu xarit di suñu imam Momadou El Hadj Diallo di nuyu mag ñi fekk yëpp di nuyu jigéen ñi di nuyu Ndeye Amy ak kuréel gi mu àndal di nuyu gan yi jóge feneen ñëw fii di nuyu sama mbokk jafe-jafe la nag di jël kàddu ci gannaawam defe naa ne fu ñu dajee dinaa négocier boo wax li may pare ñu jox parce que nit ñi duñ ko mën a déglu bu boobaa li nga wax mbiri jamono la yaa ngi koy wax wéer ko ci li yonent bi jàngale waaye wéer ko it ci mbiri jamono parce que nit balaa wax moom da nga koy li mu nekk boo buggee wax ak ab élève see di làkk lu mu déggul li nga wax ko sonn du dégg dara waaye yi mu ciy dugal yëpp nit ñi ree bu nit mu ngi dugal li mu war a dugal mooy jikko yu rafet yi lii taxit ñëpp nekk ci jàmm waaye bés bi damay sàkku rek ñu ñaanal ñi wàññeeku parce que li daaw ñu ngi fi heure bii ren am na ñu fi wàññeeku te nekkoon ay kilifa diine ci dëkk bi Serigne Ismaïla doon na ci la bokk. ñu koy ñaanal yàlla yokk leeram yàlla yërëm ko suñu sëriñ Ibrahima soxna yi ci la bokk di bàyyi soxna Ibrahima la tudd nit ñi ñooy jaaxal bu ñëwee bàyyi rek Ibrahima la parce que ki ñuy wax Baye Niass Ibrahima tur bi ñu ko tuddee nga xamante ne tur yooyu tur yu tàng la muy Ibrahima moo tax ma jaar ci tur boobu parce que ca dëgg la nag ñun ñu nekk ci lu dëgg jàngal fii defar fi ay doomu aadama ñi ma tudd yépp ci la ñu bokk am na ñeneen waaye ci ñaar ñooñu lay yem yàlla leen yàlla fay yiwu fay leen li ñu def fii ci dëkk bi parce que ku defar benn doomu aadama defar na société te ñun ñëpp mën nañoo seede ne. détail yu bari wéetaay dugg na parce que buñ jëloon kàddu kuy dem di nga jël dara moo tax ma leen di sant di sant ñi nga xamante ne ay njabootam lañu yow ku la xam xam Serigne Ismaïl Donde ñun ña fay jullee xam nañ loolu ku la tudd wala gis sa jëmm gis sa xel dem ci moom bàyyi bàyyi soxna ku ko gis gis doomam sa xel dem ci moom. moo tax sëriñ El Hadj maa ngi lay ziar di sant di sant ñi nga àndal nit ku am fulla su sa wayjur tegee lu nit ñi rafetlu da ngay am fulla téye ko bi nga dugg see ñun ñëpp suñu xel dem na ci loolu moo tax ñu leen di ñaanal yàlla yàlla kattanal leen ndaw ñi ànd ak yow it nañu ànd ak yow te xam ne ànd bi ñu ànd ak yow yoonu yàlla la ñu jëm yoonu àdduna kon dañ leen di sant. seen teewaay fii di sant it ñi nga xamante ne ñoo organisé di di ñaanal it sama rakk ko fi léegi muy Souleymane Ndiaye Faye yàlla moom ko ñu koy ñaanal moom tamit yàlla xare ko àjjana day am léegi li nga xamante def nañ ko fii ci wax nga ko bi ngay waare léegi dafa am bi yoo xam ne ku soxor mënu ko. parce que fii journée de solidarité la mooy dajale ay mbir jox ko ay doomu adama yi ko yeew loolu nag bu fekkee ne sunu borom du ko fay man xamoon lu muy fay te ñun ñii politique nag war nañuy góorgóorlu ci bés yu mel nii comme ñun yàlla nattoon nañu ci li ñuy nekk toujours am na lu ci baax waaye am na ci loo xam ne tey ñun ñii xam ne yàlla rafetlu ko parce que bu ñu mitinee mu bari ndënd bari pecc bari ay soo ci nekkee diir nag bu amee ñu tàntal yonent bi war nga cee dugal sa loxo teew ji pour yàlla dimbali su fekkee ne it jiitu nit ñi am ci yow yaakaar war ngay ñaan yàlla musal la parce que doomu adama bu amee ci yow yaakaar te defaloo ko ko am na loo gàtt moo tax ñu mel nii. man bokk naa ci ñi nga xamante ne duñu ko doyadil dañ ciy jéem a ñëw ñaan yàlla yàlla musal ñu parce que njiit boo gis la ca neex bari na waaye la la yàlla teg moo gën a diis parce que loo mën di jiitu yow man xam ne la laaj li nga jiite woon noo ko téye te boo jiitee dëkk weeru koor war nga jéggulu ñi nga jiite ñu ballaax nga balle naax parce que boo jiitoo di nga tooñ te doo ko moo tax ñu ngi jégalu waa Fatick yëpp di jégalu jullit ñi waaye di jégal ñëpp it parce que am na ñoo xamante ne it yàllaa leen nattu ñuy wax luñ dul xam waaye comme ay jullit lañ te bu ñu sañoon képp ku juddoo Fatick day dem àjjana kon baal nañ ñëpp pare di baalu ñëpp jigéen ñi man li ma amuloon ci samay wajur moom la ma yàlla defal ci àdduna su ma amee téeméeri xarit juróom-benn fukk yëpp wala juróom-ñaar fukk ay jigéen lañ moo tax jigéenu Fatick yi su ma leen gisee sama xol dafay gën a tàlli damay am cofeel ci ñoom parce que boo bëggee gis ku gore boo laalee jigéenu Fatick gis ko boo bëggee gis ku am engagement soo xoolee jigéen Fatick gis ko parce que mbiri àdduna mën nga cee xam nu yàlla bindee doomu parce que politique dafa doy waar te ki jiite réew mi tey dafa nekkoon ci opposition te ñëpp xam nañ ne ñu bëri dañu jiital alal ci politique jiitaluñu ci ngor waaye loolu dalul jigéen ñi Fatick ba mu méttee lañ gënoon ànd ak président Macky Sall moo tax buñ dajaloo di def lii koo ci laal xam naa ne xelam a ngi dem ci président Macky Sall te bu ca demee ñu ñaanal ko yàlla kattanal ko mu attan li ñu ko jox ba def ci loo xamante ne raw nañ jox ci Sénégal yi moo tax ma ko ñu fàttal ko ñaan yu am solo yoo xamante ne dina nekk kiir laayam defal ko njabootam defal ko réew mi ba fu ñu dem nag bu ñuy ñaanalee dañ cee war ji jiital président Macky Sall yàlla du wàcc joxal boppam lu ci bëri sax yonent bi nga xam moo gën a tedd ñëpp day yónni Jibril mu ñëw jox ko mbir ab matar ba mën ta xalaat ne yàlla dina ñëw jox ko da koy jaarale ci grand dada wala mu jaarale ko Serigne Fall dégg naa ne imaam la léegi mu ñëw jox maxtaar waaye maxtaar au delà de la personne de Serigne Fall war naa xam ne yàlla jaarale ay mbiram moom moo tax may wax ne politicien bu yëkkati ñaari dërëm jox ko nit foog na yàgg ko jox gàtt la yàlla jaarale loolu ci yoon boo ko joxee da ko war fan kon loolu yàllaay woon nit ca Makkatal Mukarram man mi koy joxe demaguma te li ma ci joxe kenn xamul nu mu kon yàlla mooy woote lépp lu yàlla nar a def ci yow bu yegsee ala kulu yàllin day yegsi ci yow kon bu yegsee war nga ko cee sant bu dee naqar nga delloo sa bopp ci yàlla bu dee bànneex nga delloo sa bopp ci yàlla su ma continué ñu ne day waare waaye wat naa ko ci bi ma ci sama yi ci Xaadimu bi ma gën a gëm à part yonent bi li ma gëm ci sama dënn bii mooy du ma mere doomu adama du ma doomu adama te lu ma nit debbaal na la parce que soxor du tax ma am dara wax lu bon du tax ma am dara damay fàttali ne dëkk bii ma jiite tey bu ma koy wax xale naan bu ko waaye dafa jar di wax parce que boo nekkee ci dëkk tumuranke fa ko boo lekk doo lekk soo demee ba jiite dëkk bu war nga xam ne yàlla bari doole waaye du doomu aadama parce que ña doon xeexal yi xeex ba tey ña bañ te ñu bañ ba tey mais yàlla miy joxe mu ngi joxe ba tey dañuy dem ci lu am solo muy mbiri àdduna di jongante ku nekk na far fu la neex waaye faral fu la neex te ñaanal ka nga faralul jàmm su ko defee ñëpp nekk ci jàmm yàlla jox ku ko neex mënta ñàkk ku am xol di far man du mere ku farlu ak man parce que nag bu may wut mbir yàlla nar ma koo jox ña seen wërsëg ànd man pour ma jot ci ñooy ànd man bu dee sax ku ma meññ nekk sama doom te yàlla xam ne bu ko dugalee du ma am dina def lu tax waxtu bi ma koy wut doo ànd man kon boo jotee nga gërëm ñi nga àndal te gërëm ñi ànduloon ak yow la tâche bi ba nga jot li nga war a def loolu tax président Macky Sall di ñu jàngal saa su nekk. parce que li ngeen ko gis mu toog ak koo xamante da doon xalaat ne adduna du neex ba ñu toog waaye dafa élevé wu parce que yàlla def moom lu tax mu xam ne li muy wut bu ko naree am ñi a ànd ak moom rek ay ànd moom ku war a ànd moom toro toro dina dal bu doy ko kon comme dañoo daje bu ko nit ñi gisee nit yi Matar Bay yi liñ ciy def pour mag ñi ci dëkk baa ngi fii chaque le sept ñu wàccee ñaanal doomu Fatick yëpp lu ma tàgg la ñu ñaanal Sénégal la ñu ñaanal plus particulièrement tous les fils et filles de Fatick kon war nañoo xamante ne comme bu naqar dajee ñun ñëppay bu amee ñun ñëppay dajee di joxante loxo di jéggalante waaye waaye bu leneen amee dañ joxante loxo te yaatal dënn yi suñu ko defee yàlla musal ñu ci musiba jàppale ñu loolu nag dama e ñaan waa Fatick di ci jiitu man ku ma déglu kon baal naa la ku ma ko waxit jéggal naa la bu ma tooñee di tey ma ko nag parce que du ma tooñ di ko tey ku ma ko def na ma jéggal di gërëm ñi nga xamante ni ñoo tax tey ma am occasion jël kàddu wax li ma wax mu ñoom day amee day ak ñoom ak suñu kenn mënu leen li waa Fatick ñëpp honorable député yi ñëpp a ngi fi yi dama leen di jégalu lu ne di ngeen ko dégg ndax man parce que boo péetee rek di nga dégg lu ne. waaye ñi xamul ñoom ñooy wax man maa leen war a jégalu que di luñ leen fi bu gis ngeen am lu baax ñu ne ma tar ko def te de du ma ko sax yëg na ku fi dawal oto ñu ne ma tar ko jënd ku fi tabax ñu ne moo la tabaxal su ma ko mënoon nag defal ko ñëw waaye loolu dañ koy di muñ rek te xam ne yàlla ñu boole di ngeen dégg lu ne dinañ leen xas. bëggu leen dara da ngeen a ñàkk fayda bàyyi seen jàpp yi fii topp waa ji lu ne di ngeen ko dégg waaye jégal far moo mel noonu yàlla moom ñu boole ba ñuy juddu juddu woon benn dëkk juddu woon ñu yara woon waaye yàlla ñu boole ba ñu nekk benn kon dañuy nangu nag ni mu àndal parce que nag fu ñu daf ci xasee bés kon bu ñu waxee lu naqari ngeen référé wu ci lu neex rek te avancé li ngi leen di ñaanal yàlla jàppale leen ba seytaan dugg seen diggante ay nit ñu baax ngeen ci weeru koor la nekk te mën naa ko seede nit ku baax mooy kii jéem lu baax di def lu baax di ko wax am yërmande ci nit ñi tey ku feebar saxel dem ci day am yooyu musiba bu amee ci tali bi buñ demee hôpital ne dem nañ ci day amee lay day amee lay dem ci ñi xam ñu dajale pour dimbale ñam ñi fi politique a ngi nii ñoom ñëpp ku ci ne yaa ngi jéem di def lu baax di ko wax kon ngir yàlla ak yonent bi comme ñun ñëpp ay mbokk lañ bu ñu xëccoo jaxase xëccoo ci àdduna la bokk waaye rafetal ko it da day tax suñu kilifa yi nekk à l'aise nga xamante bu ma demee ci Mamadou Alaaji fekk sama concurrent ku soxla li ma soxla du ma ko mere parce xam naa ne wax lu ñaaw day dem wax li mu yàlla bàyyi yàlla mu dogal loolu maa ngi koy ñaan ñëpp di mujjee nag ci ndaw ñi parce que jigéen ñi sama mbok la jàngkat bi wax na fi lu am solo ci ni jigéen war a taxawee waaye comme ñun yàlla daf ñu def kanam te ñu ànd ay ndaw li leen di dénku di ko dénku suñu bopp mooy nañ fonk mag ñi fonk seen i wajur boo amee ñaari dërëm takkal sa biir dem jël yëpp jox ko sa yaay wala nga jox ko sa bu sa yaay dundatul nga jox ko sa papa ay wayjur ñoom ñooy protéger nit képp man li ma wax ci sama exemple laa koy jël des fois xat-xat dana am nga génn ci di xamal sa bopp ne am na loolu bu nga gisoo ko di say wayjur lay jógee wala ngay def baax ñu lay ñaanal. waaye nag maa ngi gërëm sama yaay man lay lay am lay man xat dana maa ngi lay gërëm di gërëm samay rakk damaa lay ñaanal. yàlla yaa booy yal na sa taxawaay yàgg samay rak su ma soxlaa ñu taxaw mel ne mbaam di daw safa ak marwa kon ñooñu man mënu ma leen fay Mati Faye sama càmmiñ Jules dem na waaye jooyu ma Jules ndax Mati Faye yaa ngi toog Jules dem na waaye jarbaatamam fi toog muy ndu fas te jooyu ma liñ ci waral def yëpp ñu ngi koy def Fatou Samba fi toog may ñaan képp ku toog si jàpp tànk bii sama càmmiñ ji yàlla nga ñaanal ma sama jàmmeñ bii ministère ba mu nekk ak daajam yàlla bu ñu gis luñ jaaxal nga ñaanal sama jàmmeñ bii mairie bu mu nekk ak estafam yàlla bu ñu gis luñ jaaxal monsieur le ministre sa gannaaw la bu ma paree bàyyi sama jëmu jéem a damaa dem kër nekku fi waaye ragal féete euh, nit bu la defalee lu baax aussi wax ko mu toog ci saal bi ne ma non jëmm ji dégg na dayoo boo xamante ne xaaral ma au préfet couloir rouge fi. sapeur pompier fi te lépp nag Isaaxa saax la parce que nee nañ ma dafa nekk séminaire moo tax teewu fi wax ji nag bari na mais maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi leen di wax dañoo amoon suñuy asaka yéen ne ñun imaam yi mënuñ leen fay ndax bu ñu jógee ci yàlla bu ñu ñëw imaam yi ñoo ñu bu ñu yàlla soxlaa ba jël ñu imaam yi moo ñu yóbbu kon nag ñu am suñu tuut jox ko imaam yi. continuer tuut jox ko imaam yi pour ñu yokk ñoo ñaanal ndax ñi ñuy jàppale yàlla may leen kattan bu ñu mën a jàppale ñi ñuy taxaw yàlla may ñu kattan bu ñu tax a jàppale waaye sama mbokk yi nga xamante ne Bakar rek dara maan adam ñoom Kumba Caam lañ bokk waa Tiwaawoon muy sëñ Abdul Aziz maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant ñun liñ bokk mënuñ ko seddoo imaam Gueye Paa Gueye maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp leen di gërëm mais maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant di leen wax ne dama leen di ñaan ne ku ku amul rek teewul soo buggee jàpp nga dugg si biir jàpp sotteeku ndox ñu tàllal basan yi ñi bugg a toog ci taabul yi toog ci taabul yi ndaxte lépp mat na te lu ko matal mooy sama càmmiñ di toog ak sama doom jële toog dara man teew fii dañ doon baas tàngaay bi di ñu xaw a rey démb daf ma ne carrément su ma xamoon ne nii lay demee climatiseur la ñuy commande bi ñuy def loolu lay loolu lay doon kon moom yal na sa jàmm yàgg dara mantewul ñoom Zakaria ñëpp ñoom Mbayka euh, alaaji bële dëkk Daaru Salaam nga xamante ne si sama jàmm bii la sa biyee dogale ren yal na leen yàlla sàmm yal na yàlla taxaw bu tedd bi mais mu ne Baye Soxna ñëpp seede nañ ci dëkk bi képp ku mu jëflantewul ci dërët. mu ne jëflante naag koo bokkal deret mu ne moo tax yiw rek la ko yàlla defal mu ne ñu ngi koy jaal mboolem waa Fatick yëpp mu ne njaal bi suñ ko tegee ci loxo imam Diallo mu jox ko ci mboolem imam yu nekk Fatick mu ne waruñu woon sax wax moom mu toog mu ne bàyyi moom Cheikh Abdallah bi mu jàngiyee ba ñëw daf ko booleeg imam Modou Alaaji mu ne moo tax kenn mu mënu leen xaajale foo gis imaam gis El Hadj Abdallah mu ne moo tax kàddu gi warul woon sax bëri mu ne ndax tey imaam Diallo moom lañuy xoolee bàyyi yal na ko yàlla defal tawfeex yal nañu yàlla rusal bakkanam bi mu ne ñu ngi sant di gërëm mboolem taalibe yi sëriñ bi nee na mi ngi leen di baalu àq te di leen baal àq. yal nañu la boole baal yal nañu yàlla defal tawfiq ci suñu yëngu ak suñu dal salaamaaleykum بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور eh bien. We welcome you month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up door.